jigéen bëggoon naa nag ñu euh, wax ci actualité waaye jël ngeen temps bi ak seen yëfi caaxaan yooyu ngeen nekkee nga xam ne ah, àdduna dem directement ci élément bi parce que 48 jot na bëggoon naa nag ñu ñëw ci recours bi nga xam ne moom la état bi defoon ci juge bi mhm. euh, dogal bi mu jëloon delloo Ousmane Sonko ci liste électorale bi euh, état bi nag mujj naa dellu ginnaaw ci loolu bàyyi juge bi mu continuer liggéeyam waaye nag bi mu defee loolu moom juge bi ay info doon topp ci loolu rek ginnaaw bi loolu nag état bu Sénégal le 26 octobre ñu dem atte diggante Mame ak Ousmane Sonko loolu le la kon boo gars yi rëcc nañ fële di tàccee ka jibile nañu xam ne le 26 a ngi leen di xaaraat loolu moom dañ leen ko doon jox moom lañ bëggoon waxtaanee euh, ne jël ngeen ko ci tarixab caaxaan bi wala su fekkee mën leen 3 minutes leen ma jox ma jigéen mu wax ci ah alaaji wax waaw ala ñu waxal wax ci wax ci ah, non euh, léegi ku ciy wax rek mu ñëw ci dé ma jigéen wax waxal waxal yaay wax na mu wax <laughs> waxal la ah voilà léegi kon gannaaw bi bi état bu Sénégal delloo ci dossier bële mm. ubbi waat nañ beneen mooy bu mambay ñaa bi la 26 gars yu bëri nag nee na lu tax mu gaaw mm. parce que moom gaaw na lool waaw euh, son yi bu mm. euh, affaire bi nag wax dëgg yàlla xam nga yi moom dañoo dañoo dañoo gaaw gis naa démb déjà ñu di def ay rappel euh, ci verdict yi nga xamante ne ni dafa jotoon jàll daanaka euh, boobaak léegi def na euh, pratiquement bu deful 11 ans def na 12 ans. Mhm. mooy bu Barthélémy Diaz. Mhm. ak Madiambal ak Téliko. ak Abdoul mbay Euh, ci yoo xamante ne nii yoo xam yàgg na. Mhm. Euh, tey jii nii procès bu nga xamante ne nii bu ñu ko dooreek léegi dafa bu matee 4 mois ci lay yem. Mhm. ñu bëgg ko patam patamee te am na ay dossiers yu nga xamante ne nii wax nañ ni. Mhm. maa ngi la koy wax léegi def na 11 ans. xam loolu dafay mel ni comme si di gars yi doon jort depuis le début que ni euh, mbiru Ousmane Sonko moom. seen jubluwaay lenn kese la mooy que ni. ñu def ba mën ko éliminer parce que jàpp nañ ni. gars yi dañoo teel a <laughs> non ah dinañu dinañu jubilé su yow euh, son bu parce que kuy yàgg a xeex dara saay soo demee poosé ñu xeex la injustement <laughs> tey jii ni euh, benn juge taxaw fële euh, atte te ba muy wax daf ne dafay atte dëgg xoolul fii la far xoolul fee la far kooku ku ñu war a décorer la son yi bu jóg am na yenn yoo xamante ne daal boo ko patam patamee mhm. li ma la si wax la rek seen objectif la ñu bëgg a atteindre nañu toog nag di seetaan ba xam li ñu bëgg ñoom dinañ ko am ou pas d'accord voilà mi ngi cinquante léegi jëlal deux minutes yi ah parce que élément kii jëlal deux minutes yi rek waaw xam nga man de wax dëgg fa yàlla li may wax mooy hmm. eh, mbir yi hmm. ak yowoon ak lan ak yeey ñëw waaw mënta tere li war a ne li war a ne waaw mais yow état bi yaa leen xelal ndawa day faral di wax ne hmm. jaam ak pexem yàlla ak dogalam mais lii état bi def yaa leen ko xelal man xelalu ma leen ko nu ma leen ko xel yow man maa leen ko xelal keroog ba ñuy xaar déglu rek keroog ba ñuy àtte fële alaaji waaw yow yaa ni ah. bi maam bay ne dina li yëngalaat gësam affaire yi waaw nga ni ma ab joxoñ la dañ naan bu fële échegee na ngeen xam ne dese ngeen fii beneen waaw loolu ba mu échegee ba mu yëngal bi man la yow mi yaa ko alerté déet noonu loolu mu ñoom ñoo tëral plan kay man kay dama ne plan bi lii la ah. ñoom dañoo teg seen plan man dama ne plan bi lii la lañ ci jublu bu fële échegee tamit hmm. xam nga la fait que sax ma wax ko à l'avance daal ne lii lañ ci jublu. loolu rek moo waroon tax ñu jéem a sotti plan bi. Mm. daal day def leneen mais loolu xam nga le fait buñ toogee fee ab comédien di xam li ñuy def moo lay wan ne la ñii sore wuñoo ak man. <laughs> réew bi ci xelum comédie lay dox. <laughs> réew bi war nañ koo gëstuwaat. non mais c'est grave. parce que nii nga ko waxee ah waaw da nga ni lii ñu yëgal ba ab comédien di anticiper seen i moo lay wan ne la ji làqatu mbëtt lañ làqatu ah bu dugalee <laughs> bopp seen bopp seen bopp rek la ñuy dugal def ni kenn gisul ok <laughs> donc dañ delloo si waat xel yi mais le 26 bi nag ñu bari nee nañu moom bu ko daanee foofu bay boo ak gars yi mm, bàyyi focus bi yooyu yëpp daal du am insha allah du am en tout cas daal liy war ah. ñoom ñii xamuñu ko yàlla rek moo ko ñoom xam nga lu ñu xam mm. liñ nar te liñ nar sax xamuñu ci lu bari Ah liñ nar a def hmm. xamuñ ci lu bari xamuñu nu muy mujjee hmm. nit ki dafay def li mu bëgg à chaque fois hmm. bu fekkoon ne li ñu ngi doon am li ñu bëgg fii ñu yegg si ñu fi yegg si parce que éliminé woon nañ ko bu yàgg maanaam boobu ba nëgën li tee li ñu bëgg mënta ne looloo ngi fi ba tey jaajëf alaaji jaajëf ma jigéen Jóob